Euh, nekk ci plateau bi par rapport à la euh, rubrique bi nga euh, ça fait le buzz rubrique ça fait le buzz juste vrai que pour vous annoncer les couleurs dinañ aussi sorti la polémique d'Imam Dramé et annoncé de sa démission de porte-parole du mouvement du MODAP Nous ñëwaat aussi si li discours pour le président Bassirou Diomaye Faye amal Malfouf, le Paris euh, si devant les leaders euh, mondiaux l'audience dinañ si ñëwaat aussi euh, de façon large aussi walum rebondissement bi sur le recrutement supposé de Asma à la RTS aussi nga xamné ne na sujet yi nga xamné ne occupé débat bi fi si espace public bi rawatina si média yi dinañ ñëwaat aussi si fermeture de l'entreprise XBET bi mu melni comme fum mu toll fisc bi mun nañ né carrément mu ngi di euh, suivre son cours euh, avec euh, ses lots de conséquences wàllum débat bi nag débat bi nag mun nañ ne moom la en deuxième partie moom mooy indi li nga xam ne moo nekk waxtaan bi débat bi nag tey ji thème yi nga xam ne moom leen leen indi le premier thème yi nga xam ne dineen ko waxtaanee dineen ñëw si li nga xam ne moo cette nouvelle opposition que vaut la nouvelle opposition au régime de Diomaye Sonko opposition émission bi euh, di agité wu dinañ am euh, man benen aperçu ak euh, suñu nga xam ñoo suñu ay chroniqueur Benen thème bi aussi mo nek Jomay Sonko une gouvernance entourée de polémiques nomination frustration au sein de la coalition Jomay président en troisième partie affaire Mimi Touré ak di Mansour Faye Benen pour terminer rek top ou flop top ou flop mu nek aussi beneen rubrique boo xam ne aussi euh, bokk na euh, si euh, émission bi nga xam ne internautes yi wala sax ñii di chroniqueurs yi ñoom ñooy wax rek seen top wala flop boo xam ne rek moo leen marqué tout au long de cette semaine donc vous l'avez compris émission bi annoncé neen les couleurs noonu lay demee émission bi trop deux parties la partie bi nga xam ne rubrique ça fait le buzz beneen partie bi nga xam ne si ñëw de façon vraiment plus profonde si li nga xam ne moo nekk thème yi nga xam mom len leen fas juste euh, ñu leen ñaan rek à ce que ngeen like partager li nga xam mo nek cette émission pour euh, plus de visibilité la réalisation c'est l'affaire de Mustapha et Mohamed euh, ku yor na coordination émission bi c'est le grand journaliste qui di Abdou Koulibaly. Coulibaly moo def liggéey bi yëpp ñu koy jaajëfal bu baax mom ngi au niveau de la régie C'est li yëpp rek lo xam ne na coordination euh, de cette émission qui dit à Cheikh Ousmane aussi de nous rejoindre en cours euh, d'émission mais Moustapha le réalisateur nous nañu ñëw euh, c'est ces ça fait le buzz et on va démarrer l'émission en beauté. Merci beaucoup, Moustapha. Ça fait le buzz. C'est parti. mon oncle, on démarre avec vous. ça fait le buzz. Oui. <laughs> ça fait le buzz mon oncle disney euh, vraiment cette euh, sortie bi nga xam ne euh, Imam Dramé mm. ñun lako accordé ak mm-hmm. dérapage verbal bi nga xamné amné ci ce qui s'en est suivi mm-hmm. lynchage bi sur réseaux sociaux yi ben dem sax mm-hmm. ba ñi nga xamné ñu nek way modap bind ab communiqué rek pour ñaawlu propos yi comment as-tu vécu li nga xamné mo nek cette sortie d'Imam drame? waaw man maa ngi koy massawu déjà parce que boo ko dégloo rek da ngay dégg koo xam ni dafa am lu ko lu ko metti mais euh, Sëñ Tuubaa nee na tais-toi quand tu es en colère. Mhm. boo meree nel tekk parce que wax ci mer euh, dafa xaw a doy waar. Bob Marley ni don't blame the world and lose your soul man is just self control man is just self control nit mooy nga mën a contrôler juste sa bopp donc défaut de maîtrise moko dab xamna bu démb doon tay du du waxé noonu ci télé yi bañu ko ci ciy euh mais euh, nit dafa wara surtout boy politique dafa wara encaisser mais man lan la déggul ci sen politique bi est-ce que gis ngeen mu perturber ma wala ma wax ci lu ëpp wala ma def ci lu ëpp donc am Ousmane Sonko lan la déggul ci sen politique. est-ce que tax na mu saaga wala mu wax lu ëpp ku nekk day am lu ko neex ak lu ko naqari mm-hmm. mais bu fekkee ne da nga nekk ci pénc bi ngay wax ñëpp di la déglu ak loo am am lu la naqari war nga gere ni kilifa yaa ngi lay déglu say doom a lay déglu say noon a ngi lay déglu say am di jàmm a ngi lay déglu donc say am di jàmm boo waxee loo xam ni dañ ciy am kersa euh, da nga leen di mettre mal à l'aise say noon moom dañuy kontaan. moy ciow li nga xamni mo amplifier dérapage boobu donc mais lolu je crois que défaut de maîtrise rek la bo xamni c'est c'est très dommage donc euh, nit ku dul juum amul parce que gis naa yow même bi nga ko tempéré. Mm-hmm. après dafa nangu dafa dal. Mm-hmm. mais bobu fekk na cadre yi dem na ba paré mais après bi nga ko Imam, euh, nañu def ni nañu def ni mom dafa ni d'accord na après mu calme tout naa yéen ñaar la won non c'était avec Abdou Khadr. yaag mais après il vous a rejoint. Mhm. il il il s'est calmé mais boobu fekk na bay way na mbuus ba paré donc loolu c'est simplement euh, regrettable donc euh, voilà mënuma ci dépasser loolu ci ci analyse maintenant euh, seen diggante ak seen biir parti nak ak seeni nit ñoom yi la donc loolu mënuma ci sori mais dal nit war na am contrôle rawati na nak nga nekk un homme public waxuma sax imam mais nga nekk un homme public rek. parce que man tey jii su ma nekkoon fii di wax ay baat yu xaaw a ñagas xëy na niñ ma nawee woon dina am lu ciy wàññeeku parce que dañu ni kii nitu xol la xolam lay topp mu du jiital xelam donc loolu je crois que képp kuy communiquer publiquement war na ko moytu. Euh, jàpp nga ne euh, si communication bi euh, détecté nga si aussi.

Merci beaucoup. Euh, ça fait le buzz. Euh, Mustafa Mbaye, euh, la sortie.